jëf euh, mbokk yi di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su di jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 ni ñu koy defee ak yéen saa su di dalal ay kilifa waaye te ñu toog ak koo xamante ni yaakaar naa ne dootuñu ko présenté suñu papa Khadim Samb doon koo xamante ni yaakaar naa ni sénégalais xam nañ taxawaayam ci réew mi waaye aussi saa su ne yàgg yëkkati li nga xamante ni moo di drapeau Sénégal di ko yëkkati tey nag ma amaat mbégte bu baax a baax a baax dalal ko fii ci Sénégal Buzz 221 ñu fas yéene waxtaan xamante rek jamono ji sénégalais ñu ngi koy wàcc plus particulièrement ci élection yi nga xamante ne ñu ngi koy dëgmal waaye yeneen actualité yoo xamante ne sénégalais ñu ngi ciy waxtaane bëgg nañ ci partager ak moom mu joxe ci xalaatam bu baax a baax a baax papa ma nuyu la ziar la bu baax a baax a baax sàmb bàyyi la rek nga ndekk mbokk internet yi jërëjëf euh, El Hadji Kébé mm-hmm. maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ak sa yéeguwaay mm-hmm. di nuyu sa caméraman bi nga àndal maam mhm. di sant yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala di julli ci bi alayhi salaatu wa di sant sunuy waajur di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul mhm. di tàllal yàlla sunu boroom loxo di ko ñaan weer wu tedd wu sell wii nu dugg muy weeru koor wi ak kereem bi nga xam ni dafa daje ren. Mhm. ak sunu bokki catholique yi. nun ñi ciy jaamu yàlla yépp yàlla yàlla sunu borom nungul nu sunu jaamu. te yàlla jéggal na sunuy rëcc rëcc ci dara daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal réew mi di Sénégal di ñaanal ñi ko dëkkee mhm. di ñaanal kilifa diine yépp yàlla sunu boroom may leen fanu gudd fekk seen fan mhm. di ñaanal taalibe yi yàlla sunu boroom yombal leen ñu jekku àddiya ci barkeb yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal kilifa aada yi mhm. muy pouvoir bi ak opposition bi yàlla mi nga xam ni moo leen booli bind bind nu nu nekk ci réew mi te kenn ku ne bëgg réew mi jàkk mm-hmm. yàlla na yàlla sunu borom tàppi seeni xol ba élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal yàlla na yàlla sunu borom may nu ci ndam amiin ñu def ko ci jàmm que le meilleur gagne mm-hmm. que nag su ma ko waxee damay ñaan sama candidat muy candidat wu Bokk Yaakaar di Amadou Ba mu gañe premier tour. Mhm. te nga yaay yàlla na jig Sénégal. Mhm. di ndokkeel nag père de la nation garde de la constitution l'homme de 25 mars sans waa ji ki nga xam ni mooy le président Macky sàll nga xam ni fii ak téeméeri at taarix dina bind président Macky sàll ci Sénégal. ak jëfi président Macky Sall ci Sénégal ak gouvernement am <laughs> ngalandu jaar na fi de belees jaar na fi de Lamine Koura Gueye jaar na fi waaye ku ne xam ni Léopold Sédar Senghor ma daje woon ak wal joojo Njaay daje bu rëy ba ak Baye du Dia ba ñëw ci président Abdou juuf l'homme silence ba ñëw ci sunu baay Abdoulaye Wade ñu ñaan yàlla na ko yàlla dolli wér. amiin ba ñëw nag ci seen doom. seen sët muy leen yéen ñépp li ngeen defoon baax na waaye li ma jàng muy suuf ay yoon ak i dëkkuwaay ak i jàngukaay ak i fajukaay danaa ko def mm-hmm. moo tax ma ne président bërki démb vendredi bi ma recevoir ma ni ko këri diine yi ne ci senegal Sénégal bi bu bañ a gis sa jëf bu duggee kër sëriñam foog mu gëmm <laughs> waaye bu xoolee gis loo defal sëriñam lu mu munut dëgg la de dinaa ko boo yeman ci ilaa Touba doy na nga ñëw ci dëkku Serigne Touba Xaadimu Rasuul nga xam ni 1939 ku gaañu da ngay dem jël am silaan mbaa nga gor am tëba naa ni mbaa nga dëbb saabu ak suukar fajoo ko Cheikh Abdoulaat sunu maam ju baax ja waxoon na ko. Mhm. ni fekkee naa fii ci diggante Mbàkke tuubaa bu nit dee sibet ab soqam taalibe yi taxaw naa ko may ma ci sibet mi lu ma naan mu ne leen duma leen jox lépp ndax dama ciy wëgg samay xar président Macky Sall ne su ma see mu jeex. def ilaa Touba dangay ngay jullee tisbaar Ndakaaru jullee takkusaan Touba. Mhm. ñu ni doyul mu indi hôpitalu quatre vingt milliards muy hôpital Khadimou Rassoul nga xam ni mooy niveau 4 amul ci sa région bi ñu ne doyul mu ne danaa dem def hôpitalu Cheikh Ibrahima Niass ca Kaolack mhm. danaa dem Kaffrine boo fa jógee danaa dem Sédhiou dem Ziguinchor dem Bakel dem Kédougou ne doyul mu ne danaa ñëw nag ci sama dëkku maam Sey Diagne Malick def fa hôpitalu niveau 4. Mhm. waaye duma bàyyi kër sama maam Seydina Limaamu mhm. ne at mu ne daakaa lakk ñu ni junni million yàqu na fa wala ay milliards mu ni su ma yëgsee mu jeex fexe ba daakaa dootu lakk ne ceerno seexu mhm. tiijaan waaw danaa fexe ba daakaa dikk fi jafeetul kon kooku yoon yi danaa ko boo yeman ci diggante gàmbeek ak Sénégal te woon na Léopold Sédar Senghor te sa baay Abdou Diouf te sa baay Abdoulaye Wade nga ñëw fexe ba gàmbeek ak yoon wi gëndaloo ñaari chef d'état yi mujj ñëw àddina muy moom ak rakkam aadama Barrow mhm. fii ba foog nga lém bi Bakel Kédougou ba Daara alay be hmm. foo jëm tey dangay ngay bérigu booy dem waaw mu ne ko ma ne ko kon sàll nit dana dund téeméeri at te gàttu fan waaye nit dana dund ñeen fukki at fan wa gudd ma ne ko sa ay gi fukki at ak ñaar la waaye liggéey nga ci ay ak téeméeri at kon maa ngi koy ndokkeel di ko félicité mhm. ci jëf ju ji mu jëf ëllëg nag moo war a ñëw fii nu toog ma ak yow waaw war a inauguré nag RTS ma ne ko soo yeewoon tey Philippe Diogoy mbaa nga yee Alioune Fall mi jëkk a nekk directeur général RTS mbaa nga yee Oboy Diop mbaa nga yee ñi nga xam ni ñoo fi mos jaar ñëpp. Mm-hmm. ne leen tey RTS am na tuuru fukki étage ñu di ko wax tuur bi intelligent nga samp ko ci Medina gi nga xam ni Seydi Jaaj Malik moo ko tuddee Madinatul Munawara mu a ma ne ko ñu naa ah loolu day xalaatal nañ ko waaye defar nañ ñi mënoo loolu kon yow président Macky Sall. Mm-hmm. boor boo dugg. foo dugg rek ci Sénégal président Macky Sall teral na leen. Mhm. maison de la presse. tudde ko kër Touré. Mhm. kon ñu ngi koy ndokkeel di ko félicité. jërëjëf di ko ñaanal yàlla sunu boroom. Mhm. li mu liggéeyal Sénégal yàlla nag ko yàlla fay ci sagal ko. suturaal ko may ko fan wu gudd ànd ak wér. man nag. moi je suis maquiste jusqu'à la waaw yàgg nga ko wax. moi je suis maquiste <laughs> jusqu'à la mort. maa ngi ma ci ndox ak suukar boole naan wala boole tuur. loolu laay nuyoo. waaw. di la déglu nag ci laaj ak tontu yi. macha allah. ba ca kanam. mi ca kanam yu am kàddu am solo ci jotaay bi nga xamante ne rek ubbee nga ko ci kàddu yooyu waaye comme ni ñu ko waxee rek tey euh, bu ñu toogee ak yow dañuy bëgg yaatal lu bëree bëree bëri keroog euh, bi nga toogee xam naa ni boobu fekku la Sénégal président Macky Sall jàkkaarloog askan wi nee leen de incha allah damay dem ñu bëri amoon ja yaakaar. président pareegul pour bàyyi Sénégal wala dafa bëggoon a li nga xamante ne moo di troisième mandat mu taxaw ak sénégalais nee la doyal na damay dem sa yëg-yëg boobu lan la woon. mbégte bi ma am keroog ci politique gëj naa ko am kere bi Cheikh Anta Diop génnee ci prison bi njaareem. bi ñu arrêté Cheikh Anta téye ko njaareem premier savant Afrique noire mu dëkk ci village boo xam ne bi ñu koy arrêté muy doon sama dëkk bi amatu yoon. amul courant ay sàkket a fa nekk nag néegi ñax kere bi génnee Seex Anta yëg-yëg ba ma amoon keroog ci mbégte ci politique yëgatuma ko ci politique ba kere bi président Macky Sall taxawee ni le 2 la sama la sama mandat di jeex ci laay delloo léegi taxaw ci bopp Sénégal moo tax bi ma ñibbisee mhm. damaa jënd ñaari xar def feet sant sunu borom wàccelu ay kaamir ñaanal ko ñaanal sama bopp ñaanal sama njaboot ñaanal njabootam ndax ngar mi mhm. dafa am solo mhm. te wane na ni poussé bi duma ko mujje mu réer loolu mu jëf jàmbaar a koy def ci moom la pétrole feeñe ci moom la gaz feeñe ci moom lañu amee arène nationale ci moom lañu ñu amee stade président Abdoulaye Wade ci lañu amee arena ci la ñu amee loo xam ni li ci la ñu amee TER ci la ñu amee BRT 1902 la ñu inauguré saxaar gi mu ngi dawaat tey Tambacounda ak Ndakaaru loolu bi muy feeñ fekk nañu dagg raay bi lii ñu jaay ko li ñu maye ko mu dikk ne su ma dellusee dinaa ko taxawalaat keroog mbégte laa am xam ni jàmbaar jëf na. Mhm. jàmbaar wax na ndax li mu def jàmbaar ko man mhm. foo nga dégg daal di doon ngar mi. Mhm. doon na ay fetal doon ni ngànnaay door mën a jëf li président Macky Sall jëf. bég ci kontaan ci fier ci. sama xol sedd ci ma xam ni sama jàmbaar ji ma àndalan du yaafuus du ragal te puso bi du réere ci moom mhm. waaw keroog yëg-yëg boobu nga am. yëg-yëg boobu euh, ginnaaw loolu papa ñu door li nga xamante ni moo di élection yi fu mu nekk nii yaakaar naa ni le 24 euh, mars ñu bëri am nañ yaakaar election yi jeexee li nga xamante ni moo di premier tour waaye euh, campagne yeeg candidat yi nga xamante ni ñoo war a dem vingt 2024 gis-gis bi nga ci am nan la ginnaaw am nga sa candidat naka nga gisee yeneen candidat yi. waaw candidat yi yëpp di leen ñaanal rek ñoom ñépp ñu dem campagne ba ñëw ci jàmm ndax Sénégal noo ko bokk te candidat bu mu ci mën a doon demoo Guinée di wate ji di fa campagne campagne woo Mali campagne woo Burkina Faso Sénégal nga ñëw di fi campagne ndax fi nga dëkk hmm. kon candidat bu ci nekk na nga mesurer say parole ndax gis nañu fi candidat bu xas moroomam candidat jamono dox ba mu ñëw ci candidat ba gañe doon fa ministre mbaa mu doon fa directeur te dafa am teraanga boo xam ni boo ñaawalee wutin wi soo ko amee amin bi day ñaaw kon dañuy rafetal wutin ndax yorin rafet loolu mooy soo premier acte ci candidat yi mhm. bi ci des mooy mën naa jeexee ci premier tour comme mën naa jeexe ci deuxième tour ndax nag tey xool naa sama candidat euh, bég naa ci moom lool ci yar bi mu am ak teggin yi mu am xool naa ku mel ni sama mag Khalifa sàll taxawaay bu réy la taxaw mhm. ci biir réew mi te da ngay xam ni xalifa def na senegal ñaari yoon wër na ndomb Sénégal ñaari yoon ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi dox di dem waaye ñi nga xam ne xaw naa xam ci ñoom dara mën naa leen a waaye gis naa ni ñoom ñëpp ñu ngi ci dem dañu daje nag ci époque bu metti mm-hmm. ndax man maa ngi woon sama commune def naa fa ñaari fan ma di leen nuyu muy commune Dendey Guy gi di jiital ci nuyoo bi Serigne Ibrahima Mbacke moom xalifa sëñ ma numbeeg sëñ Modou Xabbaan ak rakkam yi mu bokkal sëriñ bi ak taalibe yépp di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér di nuyu sunu maire muy Pape Abdoulaye Salaan dem naa fa ndax dafa am loo xam ne bu weeru koor ñëwee damay dem lijjanti ko yóbbu. man communauté Ndeye guy gi mooy sama mooy mooy sama parti. Mhm. su ma sañan mu mel ni Ndakaaru mbaa mu mel ni France te président jàppale nañu ci. Mhm. li des mooy yoon wu ñuul waaye am na làmp yu doy bi ma gisee Mbàkke ñu ubbi robinet yi Lac de Guiers dugg Mbàkke sama xol dafa sedd. ma ne Alaaji Fàllu ñaanal na ko sëñ Modou Moustapha ñaanal na ko Cheikh Abdoulaye Laat ñaan na ko mu ñëw tey ba ci Serigne Mountakha Bassirou mi nga xam ni lépp mbég la ndax Mamadou Bassir ci moom la feeñe may nuyu suma commune ñun day sunu commune jàmm doo nga fa xew noo ngay waxtaan ci sunu biir ndax nun ay bokk lañu wax naa ko démb dama ne leen nun sunu commune bii chef d'état mosu fee ñëw 1968 69 la fa Senghor ñëwoon chef d'état duggaatu fa ministre duggaatu fa ba fii may wax ak yow kon nun nan rafetal sunu dem. Mhm. waaye xam nga li tax ma def ci gëstu ñaari fan yi ma nekk ci village bi. Mhm. musuñu am élection yu daje ak koor te àll bi tàng na tàng goo xam ni. Mhm. nit ñi pour ñu génn. di teer wala ñu génn di tàccu dafay jafeñ moo tax campagne bu bu doy waar la te yuux mën naa jibe fu ñu ko foogewul hmm. maa wax loolu man lan lay wund yuuxu mën naa jibee fu ko foogewul euh, xam nga militant ak militante ak supporter ak farandoo bokkul xam nga amateur làmb ak supporter bokkuñu waaw amateur làmb la bëgg hmm. mbër mu bëri mu seetaani waaw militant ak militante parti bi day nekk ci xolam mu bugg ko du dana am nag ku mu jiital waaye dafay farak moom waaye ki muy gën a faral nag mooy réew mi te ren benn dinga am xaalis bu bari lool ndax politique bi tàccoog teeru ku man boppam du ko def woor ba trois heures nga génn di tàccu nit mhm. mu dikk tàllal loxo yi neen dem loolu du baaxul ren ci élection yi ñaar mooy ci suuru élection yi ku amul ay wata yu doy ñu mën a dem jëli militants yi ak militantes yi électeurs yi indi leen ñu wate nga delloo leen taux bi dana beese beese boo xam ni bii ñépp dañuy waaru ci yàlla suñu borom xawma nag ndakaaru ak taax yi mais àll bi moom képp ku yaakaar ni danañu génn di dox ci naaj wi di la wateeli da ngay nax sa bopp ndax man ci àll bi laa dëkk te politicien bu mag laa mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, loolu am na solo loolu kon nit yaa ngi ñaax politiciens yi nañu bàyyi ñi nga xamante ne ñoo leen war a voter nekk ci àll bi ak situation bi ñuy dund moment bi parce que hélas àll bi dafa metti trop waaw xam nga ni fi ni dugub ji sori na ngi bëgg a jeex mhm. gerte yi jaayeen jeex na soow amatut ba nga mën a jaay soow am ci loo dunde mhm. nag yi commencé nañu yooy te béykat bu ñu demee ba noor bi kundum génn loo ko du yomb. Hmm. xam nga dox un kilomètre wate ji. wala nga dox mooy un demi kilomètre wate ji ciw nax te woor ci mag. yombul day metti dafay metti hmm. yàpp bopp kum ump da ngay làmb sam kaang. dëgg la de dëgg la de. waaw nañu waxante dëgg. <laughs> dëgg la moos. Euh, waaw yombul de. yombul man dem naa suma commune. Hmm. mais man parce que bi ñuy dem ci élection maire te muy taw. dañu réquisitionné ay oto ñu dem jëli ñi ci tool yi dangay ñëw ci tool yépp nit ñi indi leen ñu wate nga delloo leen ca tool ba ba wàcc leen fa nga leen jëlee woon soo ko deful doo gis nit. Mm-hmm. koor gi dafa metti bu ñu demee ba 42 degré 44 degré cinq degré. kooku dafa metti dafa metti moo tax na ñu sóoraale ne taux bi dana baissé bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, ci leneen li nga xamante ne bëgg naa ñu taxaw ci tuuti xam naa du ñu ci yàgg loolu muy euh, loi d'amnistie bi nga xamante ne président Macky Sall daf ko jël euh, voté lu ko bi mu jàllee gis nañ ñi nga xamante ni yoon tegoon na leen loxo bàyyi na leen ku ci mel ni ñu cité ci ñaari leaders yi nga xamante ni ñoom na Sénégalais yi gën a ràññee Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye naka nga gis-gisee dem d'amnistie bi parce que ñu bëri tamit dañu ne d'accord ñu ci loi d'amnistie bi nga xamante ne président def na ko ndax boppam la ko defal ak njabootam sa gis-gis ci loolu papa boppam de di bi nga bi nga xam ne moom la président Sall def mooy wane ni président Sall garmi la mooy wane ni li ñu ko doon tuumaal du moom chef d'état la preuve conseil constitutionnel ak tirbino yi fee yi nga xam ni am na fa wane na ne Sénégal ñi nekk ci bopp dogal yi dégluwuñu kudut yoon yoon la ñuy doxal. Mm-hmm. mais amnistie bi bi mu def yàlla dafa ni ku bëgg ma jéggale del jéggale. Mm-hmm. man bi mu ko defee sama xol def ci sedd dama ci bëgg ñoo ñu nga tudd tam génne leen. waaw ndax bu fekkee daf koy politique du leen génne mënoo am adversaire potentiel boo xam ne yow sa candidat mooy seen adversaire potentiel nga génne leen ne kaay leen dem ci làngu politique. loolu mooy setal na ne liñ ko wax waxalan defu ko benn. ñaar mooy wane na ci ngar mi wane ci ak njàmbaar wane ci jom wane ci aw fit ndax loolu fi la ko fekk maître Seye fekkut président Abdoulaye Wade nekk chef d'état mm-hmm. te bi mu toogee dafa administré ñi ci arrêté woon génne leen mm-hmm. ñun fi la ñu fekk te du moom moo ko jëkk a def belees bale na fi président Lamine Gueye président Mamadou Dia mi njëkk njëkk a nekk président du conseil baal na ay nit Léopold Sédar Senghor baal na ay nit ku ne xam na ni téewoon na bàyyiwal jooju njaay ñoom mais bàyyi na leen ba bàyyiwal jooju ñoom dikk ànd ak président ko jàppale ci politique ci jamono yi nga xam ne mi ngi war a génn ci réew mi. Mm-hmm. président Abdou Diouf def na ko. Baye Abdoulaye Wade def na ko kon moom su ko defee dafa def lu rafet te Sénégal. Mm-hmm. jàmm rekk a fi xeeñ. Mm-hmm. te luy tax réew mi am jàmm. moom mi nga xam ni moom la yàlla dénk réew mi fukki at ak ñaar daf ko war a def ngir jàmm ji continuer ba bu ëllëgee ku doon chef d'état Sénégal mën a fekk jàmm nga doxal ko ci jàmm dem loolu moo tax mu jëf jëf jure ji mu jëf ndax kat dama lay wax dara de. Mm-hmm. loo am ci àddina jàmm tax bu jàmm amul danga jaay loolu jënde ko jàmm jàmm tax nga man maa woo. Mm-hmm. ma dogu ñëw fekk dajeeg yow fii ci dibiteeri Ablaye Naar Samb. waaw pour war a waxtaan ci jàmmi réew mi ak teeg. Mm-hmm. kon loolu dama ci kontaan. bëgg ci deuxièmement mooy muy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye et tant d'autres mu bàyyi leen loolu bëgg naa ci ndax ay sénégalais lañu dëkk ci réew mi te nit lu ko dal dafay nungu ni yàllaa ko ko teg su teggi ko mu dàkkoon yàllaa ko ko teggi mm-hmm. Mhm. Euh, gis nañ sànq wax nga ko nañu campagne ci li nga xamante ne mooy jàmm jamono ji bu ñu waxee ñaari partie yi nga xamante ne ñoo ëpp doole ci euh, candidat yi dem dañuy tudd amadu Ba dañuy tudd ki nga xamante ne aussi moo di Diomaye président waaye dañu seetlu ci campagne bi dafa commencé am sànnante xeer ci candidat yi ndax ñu ngi dégg léeg-léeg Amadou Ba bu waxee Diomaye tontu waaye Diomaye tamit su waxee amadu Ba tontu naka nga déggee candidat yi nga euh, kàddu yooyu nga xamante ne ñoom ñi ngi koy jokkalante ci biir campagne yi waaw xam nga bataille psychologie la kenn ku nekk ci ñoom euh, miim du ragal di di tuuma la kenn ku ne ci ñoom. Mm-hmm. bu fekkee dafa am kàddu gu jóg nga yaakaar ni kàddu gi yaa tax mu jóg nga am façon boo tontoo loolu yàgg na ci politique sànnante xeer ci politique mën ñàkk te politique bi am Sénégal léegi. waaw moo mooy politique bi gën a siw civilisé 68 li fi xew da ngeen di gone. 62 li fi xew da ngeen di gone. 1988 mhm. maa yoroon restaurant restauration avec Abdou Gagne. 88 mhm. bi jàll lu jiitu loolu. Mhm. mën naa laa limal ci at yu bari politique am yoo xam ni lu ne xewoon na Sénégal. moo tax bu ñu wax ne suñu jàpp journaliste may leen journaliste yi jàpp ñu leen Alassane Ndiaye Alou. moo dàq jàng journaliste yi fi nekk fuuf lu seen morom. mais bi mu nekkee ci euh, parti bu ñuy wax para nga xam ne nekkut ak parti bi Léopold Sédar Senghor jiite. Mhm. Sénégal Guinée dañoo dem di ko ñaan parce que dañ ni président Senghor Alassane Ndiaye alu bokku leen parti ba ngeen arrêté ko mais c' est sûr et certain bu àndut ak équipe bi yóbbu leen Guinée du ñu gagné ci lañ ko woo président Senghor woo ko mu dem yóbbu équipe bi ñuy dóor Guinée 1-0 xaw ma 62 la wala 63. Mhm. donc pour wax la ne la lu fi yàgg la. lu fi yàgg la loolu lu fi yàgg la parce que mhm. damay wax ne leen. ku bëgg akara ñime kaani dëgg la mënoo doon journaliste di bind ci bàyyi jaambur mhm. loo dul bind ci sa bàyyi waaw di bind ci ndeyi jaambur loo dul bind ci sa ndey di wax ci bàyyi jaambur loo dul wax ci sa bàyyi di ko wax ci loo dul wax ci sa ndey ba pare bëgg am jàmm mënta nekk dëgg la parce que am na journaliste yoo xam ñu ngi daje ak ñoo xam ne lii du nitu politicien mhm. yëkkati baat boo xam ne bu ñu ko tegee sa bàyyi métti nga teg ko bàyyi jaambur ngor nungu ko diine nungu ko tey dama lay wax dara tooñ tooñ nit koo ëpp doole mbaa nga am waxukaay boobu te amu ko nga tooñ ko. Hmm. su am na ci ñooñ bu ñu ñaanee yàlla suñu borom du du nungul seen ñaan te damay wax ne dañu moytu ndax bukki bëtt bunt bant bënn bëtam. dëgg la de. dañ moytu de. Hmm. Hmm. boo yoree sab rajo toog. waaw nit toog ci këram xaar yàlla suñu borom. nga yor sa télé ci sa kër toog. wax ci bàyyi jaambur lu métti mu am jabar ami doom ami sët ami goro ami bokk nga teg ci deram lu ñaaw parce que dafay politique te mu wóor na ni bu doon politique bu ngeen dajee ci mbéj bu la ne sumil sa tubéy nga summi ko wala ba tasal sa séer nga tas ko nga wax ci moom loolu ngor nungu ko nit dangay wax loo xam ni bu ñëpp toogee nga wax ko bu ñu la wanee ginnaaw nga ko waaye làqu sa ginnaaw karawiye di saaga nit mbaaga di ko wax lu bon loolu nit ku juddu am deret ju baax du ko def nit bu amee deret ju baax du wax lu bon du ko def Mm-hmm. c'est ça la réalité. Mm-hmm. c'est ça réalité euh, ma tëjee ak yow ci euh, xeex beeg euh, yenn mbir yi nga xamante ne mi ngi am ci campagne yi ndax it gis nañ ku ci mel ni Serigne Bara Ndiaye ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi def seen campagne gis nañ ci ay agression yoo xamante ne ci biir campagne bi la am bañ gis ay balu fetal ak yeneen nit ñoo xamante ne gaañ nañ leen ci campagne loolu tamit ci campagne papa. dama la ne. Mm-hmm. sëng am na lu muy jar fa mbaaw. waaw. sëriñ boo mën a doon ci àddina boo duggee ci politique campagne danañ la saaga dañu la sànni xeer. la man moom moomu di sëñ Baara Ndiaye tooñ na ma wal fajiri hmm. te waxuma ko dara tontuwuma ko man ku ko nam bi mu yemee ci jaayi garab waaye bi mu ñëwee nekk kër ni kër toog ca wal fajiri wax lam wax ca man moo ñam àndal wax ko dama toog seetaan leen bàyyi leen ak yàlla hmm. ndax duma ko tontu boo demee ba dugg ci làng ak politique da dégg la sa maam doon dund ca xiif ba ak koo mën a doon tey dëkk jàgg boo ko gis léeg mu xam leen la ndax bu fekkente ni da ngay am ñoo tooñ. am na ñoo xam ni danga leen di tooñ ñu dem fa nga juddoo xool noo juddoo xool nu sa baay juddoo mbaa sa ndey juddoo wala lu sa baay doon def mbaa sa maam doon ko def mbaa sa nijaay ñu toog bu wax jotee rek ñu sulli ko. waaw moo tax ñu war a moytu. moo tax ñu war a moytu xas nit ñi ak tooñaate mm-hmm. ku politique ñu sànni lay xeer man politique naa ànd ak Idrissa Seck huit ans laa ànd ak moom mm-hmm. amul lu ñu dajul ku bañ ñu saaga la bul politique ku bañ ñu xas la bul politique ndax am na ñoo xam ne ñii dañuy xaar ba nga dugg ci politique bi ñu sulli say say cosaan mm-hmm. waaw donc c'est c'est c'est c'est loolu moo politique ànd. moo ñoo ànd. ñoo ànd <laughs> ñoo ànd macha allah maam muy kàddu yu am solo ci li nga xamante ne rek dooree nañu ko waxtaan bi waaye papa ma taxaw ak yow tuuti ginnaaw bi ma génnee ci point boobu noonu.